Omar Diallo euh, ñu ngi lay euh, nuyu am mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM yow yaay euh, chef service régional du commerce bu Dakar. waaw alhamdulilah ñu ngi leen di nuyu yéen tamit di leen ziar di rafetlu opportunité bi ngeen ñu may pour ñu waxtaan ak seen auditeurs yeeg seen nu ñu koy waxee seen lecteurs yi yooyu xam ne ni ñoom ñoo safoo réew mi FM. Mm-hmm. alors monsieur Diallo ñaari fan moo dox suñu diggante ak tabaski ñu bëggoon nga wax ñu euh, yenn euh, denrées yi fan la toll ci disponibilité bi surtout lu mel ni soble pomme de terre euh, laa ci dawlin ak yeneen ak yeneen nga xam ne dañ koy yittewoo lool ci fête bi. waaw xam nga waxtu tabaski moom ak yenn fête yi bu jotee. Uh, surtout ñun ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñun ñooy dem ci tabaski ak korité Euh, dafa am ay denrées yoo xam ne ni dañuy seen importance dafay gën a fës par rapport ak yeneen yi alors muy fondamentalement euh, soble bi euh, ak pomme de terre bi ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ànd ak moom parce que il faut nga am dëwlin. ak yenn yenn ndugg yu sew yi ñoom laaj ak ñoom poobar ak yooyu ngeen di wax mais li ci gën a am solo ci ci instant bi nii mooy pomme de terre bi ak soble bi te ci côté boobu dafa am ñaari xayma yi ñuy def. benn xayma bi mooy ndax li ñu soxla ci fi ñuy jëm ak tabaski bi ndax doy na ñun ñu ne waaw bu doyee tamit ndax njëg yi baax na ñu ne waaw lu tax ma ne waaw parce que euh, li fi nekk ci soble ak li fi nekk ci pomme de terre mënuñu ko jeexal ci benn weer maanaam li ñu soxla par exemple tey fii ba fi ni euh, weer début mois de juillet bi yëpp ba bu jëm ci tabaski bi 23000 tonnes la te ñu ngeeg lu toll ni quarante 000 tonnes ci ci ci ci ci stock yi. ci soble waaw ci soble. Euh, deuxième chose euh, ci pomme bi na ngi soxla environ 9000 ba 10 000 ton te fi mu ne nii li nekk euh, ca mbaan mat na pratiquement consommation wu ñetti weer maanaam trente et quelques mille tonnes donc ci boo wan fànn boobu la nga xam ne ni moom la ñu soxla ci soble ñun mënuñu ko jeexal fii ak tabaski bi mënta nekk. gannaaw mënta nekk nag dañuy gëstu nag léegi comme am na dafa war a accessible maanaam njëg yi dafa war a baax njëg yi nag tey boo ko xoolee euh, soble bi ak pomme de terre bi mën naa ne ni ko seen njëg sax dafa xaw a méngoo parce que bon boo xoolee pomme de bi tey ñu ngi koy jaayee cent francs ci marché bi au détail euh, pomme de terre euh, soble bi aussi ñu ngi ci 400 mais gis naa ñu des fois sax dinañ gis 450 nag mais bëriwul waaw bëriwul mais cent bi franchement moo ëpp voilà. Euh, léegi nag boo amee ñaari yooyu nag ngay xool ndax dëwlin bi aussi mat na dëwlin bi li fi nekk moom mënuñu ko jeexal fii ba at mi jeex waaw moo tax prix dëwlin bi tout temps day gën di wàññeeku rek voilà li ci des nag moom ay condiment la yoo xam ne ni bon ci marché bi la nekk bon bu amee problème rek ñun dañ ko doon yëg mais comme gisuñu benn problème d'approvisionnement mooy que ni marché bi franchement alhamdulilah fi ak ñetti fan ñu dem kori euh, tabaski ji euh, gëmuñu ni que perturbation mën na am ci ci diggante boobu mais soble seeg pomme de terre bi euh, ñaar wala ñetti fan ci ginnaaw ñu ngi doon wax ne yokku na te effectivement constaté woon nañu ne prix yi quand même xaw na yéeg. waaw prix euh, xawoon na yéeg parce que xam nga dañu am ay euh, commerçant yoo xam ne ni ñoom seen intéret mooy profit rek. donc période tabaski yi nii buy jege si ñoom xaaruñu sax ñu ne yokku na fële wala wàññeeku na fii ñoom dañuy yokk rek alors bu fekkee nii nag dañuy commencé di yokk. fekk ni li ñuy jaay li ñuy jënd matul yokk boobu day gën a continuer mais li ko waraloon mooy que ni li nekkan ci stock ci àll ci àll bi maanaam ci tool yi moo jotagul woon ñëw ci fii ci ndakaar ak ci région yi stock yi ñëwtawul woon génn pour ñëw mais boo leen ko seetloo depuis trois jours prix yi commencé na mel ni luy wàcc parce que stock yi commencé na jóge ci vallée bi mu euh, ci ci ñaay bi mu ngi ñëw dans ce qui concerne ñëw mais pour pomme de terre bi aussi mbaan lay jóge mu ngi ñëw voilà léegi euh, li gën a sabab lu wow bees bi wax parce que wàññeeku gu day am ala kulli mooy que ni tàngaay bi ñu nekk nii ku fi jënd soble di ko seeral mu ta mu mu mu yàgg ci say loxo dafay yàqu la même chose et valable aussi pour la pomme de terre moo waral gars yi bu ñëwee rek bu ñu bañee soble bi ñu denc ko muy nëb yooyu du ñu yokk prix bi dañ koy jaay loo xam ne rapidement day jaay mu dem voilà kon mën nañ am yaakaar ne fi ak euh, suba prix yi dina gën a wàññeeku. non jarul xaar su yeeg suba tey tey tey boo demee ci marché bi di nga gis ne que euh, soble bi euh, gars yi ñu ngi koy commencé di ko di ko wàññi bu baax a baax. waaw pomme de terre bi tamit noonu man gis naa sax ñuy jaayee 400 francs 400 francs alors que barki démb man 450 laa gisoon ci soble bi mais tey bi ma demee ci tour ci marché bi 400 francs laa gis pomme de terre bi sax gis naa 375 fële marché Gueule Tapée bi nekk côté Guédiawaye bi Euh, gis naa sax 375 mais norme euh, li gën a li gën a bëri mooy 400 voilà. alors lan moo tax prix yi di yokk noonu alors que marchandise bi manqué wul xanaa amul loo xam ne moom mooy fixer prix yi ne lii ñu koo dépassé maanaam benn décision boo xam ne dafa jugee ci kilifa yi. waaw xam nga mooy li ma wax rek spéculation moom euh, tout le temps day am ci marché bi surtout période période fête yi nii commerçant yi nee naa leen bien que ñoom ay consommateurs lañu. mais commerçant yi ñoom li leen intéressé rek mooy lan la mën a gaaw am yokkute yokku ci seen marchandise donc ñoom bu ñu toogee gis ni que euh, état bi fixé wul prix wala état bi intervenir wul dañu naan ñoom lu leen neex la ñuy jaayee loolu moo amoon ba semaine ba bële bi ñu gisee loolu nag ñu ne bon ñii xam bu ñu leen bàyyee nii ak consommateurs yi day continuer di yokk alors que xam nañ ni que prix bi ñuy jëndee soble bi ak pomme de terre bi war na leen mën a tax ñu jaay ko prix bu raisonnable ba ñu bu ñu dépassé quatre cent francs. ban prix ñuy jëndee. ñoom dañuy jëndee bu dee soble bi koy jëndee trois cent vingt euh, trois cent trois cent trois bu dee soble bi dañ koy jëndee ba trois cent soixante quinze. parce que boo xoolee fi muy génnee fële ca ca tool ba deux cent vingt cinq francs lay génnee foofu ca tool ba donc diggante boobu intermédier bi koy jël ak ki koy indi di ko jaay ci marché bi ñu ne léegi maximum quatre cent francs prix détail mënu leen ko dépasser. te gis ñu instant bi nii ndax dépassé nañ ko pomme de terre bi cinq ñoom lañ koy jëndee ñu ne leen ba la ko jëndee 325 ngeen jaayee cent francs loolu moo am ci marché bi tey. voilà moo waral euh, prix bi euh, du ñu nee ni que am na ñu koy am na ñu am am na ko ñu ko yokk duñ ko weddi. mais kuñ ci fekk nga koy yokk itam yoon dana dal sa ko parce que boobaa léegi infraction lay doon parce que arrêté ñëw na fixé prix bi. arrêté moo fixé effectivement d'accord léegi est-ce que tey koo xamante ni dafa xëy rek yokk ci mu neex ko am na ay daan yoo xam ne waajal ngeen ko pour moom. waaw ki nga xam ne ne dañoo fixé prix bi ne la lii nangam lay jar yow nga xëy ne du ko jaayee dama koy yokk déjà def nga donc lu mel noonu bu amee ñun bu ñu ko constaté doon lay jàpp yow bu ñu la jàppee dafa am ñaari daan tegu sa kaw. premier daan bi da nga koy yëg d'abord ci sa marchandise parce que sa marchandise euh, soble bi wala pomme de bi nga xam ne ne yow dañ ko yokk dañ koy nangu ci sa loxo dañ koy saisir. bu buñ ko saisiree boo ñëwee bureau bi fii dañu lay teg la man waaw bu la neexee nag boo fayee ba pare mën nañ la ko delloo mais tant que fayuloo alamaan bi duñ la ko delloo waaw te alamaan bi loi bi daf ko fixé dafa am ay prix euh, yoo xam ne ni dañu la naan minimum 36000 la juróom-ñaari junni ak ñaar téeméer euh, maximum 5 millions mooy juróomi millions mais loolu yëpp mu ngi aajo ci importance su saisie bi nga def ak importance su valeur produit objet de l' infraction bi ak yow loraange bi nga lor consommateur parce que kii ñu wax ne la da ngay jaayee 400 ñu fekk la ngay jaayee 500 yaa ngi sàcc 100 francs ci consommateur bi bokkul ak ki nga xam ne ne dañu ne 400 lay jaayee muy cent jaayee 405 wala 410 muy jël dërëm wala ñaar dërëm ci kii bi ñoo ñaar ñooñu mënuñu bokk àtte voilà. léegi yéen da ngeen di def ay euh, mission de surveillance de contrôle wala da ngeen di toog rek xaar dénonciation am pour que ngeen jóg euh, dem sur le terrain. bi nga njëkk wax moom la gën a def maanaam wàcc ci terrain bi dem contrôler parce que quand même boo jëlee arrêté ne dama fixé prix yi le minimum mooy nga wàcc xool ndax prix yi ma fixé ndax gars yaa ngi koy respecté. damay def Pikine Guédiawaye Rufisque soog a wàcc fii ak Dakar ak sama sama sama gars donc euh, gars yi boo contrôlé wul. ñaar beneen beneen aspect bi mooy réclamation yi nga xam ne consommateurs yi dañ koy def bon boo gisee ma ne la bu njëkk bi la première kii bi la ñuy njëkk def maanaam mooy wàcc ci terrain bi parce que sénégalais consommateurs yi xam nañu seen devoir mais duñ ko def. Mm-hmm. da ngay gis koo xam ne dafay xam ne la xel ni am na arrêté bu fixé prix bi à temps nit di ko jaaye lenn lu lu safaan bi mais du jël téléphone am di dénoncer. da koy seer na de. wala waaw waaw lii yokk na ata ñi ne 400 ñoom ñu koy jaayee nangam ah waaw baax na yàlla baax na et cetera alors que war nga mën a jël sa téléphone woote 821 12 18. mais est-ce que aussi yéen nit ñi xam nañu taxawaay boobu si yéen euh, ba ba mun a ñëw vers euh, service yu mel nii sa bos tamit pour déclarer. xam nga euh, service bu mel ni nii. mu ngi fi depuis 1964. mais est-ce que am na assez de sensibilisation ak visibilité buy tax nit ñi mën a ñëw. waaw laay waxee dama tey nii. Hmm. xam nga boo kenn mënul toog ni amul contrôle donc yëg nga ni contrôle am na parce que du du question soble rek ñu ngi koy def ci ceeb bi. ñu ngi koy def ci suukar bi donc amul benn consommateur bu sañ a taxaw tey ne xamuma ni prix yi dañ koy contrôler. deuxième chose dafa am lu ñuy wax les associations de consommateurs ñoom ñoo fi nekk ñooñu ñoo porter combat bi plaidoyer boobu noonu ñun rek la ñu mën a def mais association de consommateurs yi ñoom ñoo am rôle boobu pour que consommateur bi mu am un comportement citoyen lu mel ni bu amee mu jël mu dénoncé ñun lu ñu mën mooy di wax joxe suñuy numéro de téléphone wala bu fekkee ni am na numéro vert di jox mais malheureusement ñun amatuñ numéro vert voilà bu njëkk dañ daan wax opère yu mel ni bu amee ku am na nga woote ci numéro ver bi nga joxe sa tax amatu leen numéro bon numéro vert bi dafa amoon ñaari problème benn problème bi mooy que ni euh, dañuy dem ba finalement leneen la ñuy la ñuy def ci numéro vert waaw ah, ñun fii dañu doon saaga suba ak ngoon da nga xam ne dañoo dañu am jot dañuy dugg ci numéro vert bi di utiliser. tam ah, liy dal sapeur pompier. ak yooyu ñu dal dañoo dem ba finalement ñun ñu daal lii. est-ce que sonn ci numéro vert oui parce chaque seconde cri karat man la diw dara ah baax na saa neex laa doon laajte wala parce que des fois dañuy utiliser artistes yi. Hmm. pour def suñu publicité yi pour ñu jàllal lañu suñu yenn message da ngay ku nit ki du déglu message bi. Hmm. mais artist bi lay lay xool. Hmm. numéro bi jël ko ne dafay yaakaar ne numéro artiste bi la alors que numéro vert la loolu moo ñu daloon fii ba finalement ñu ne numéro ver bi dañ koy dañ koy dañ koy dindi def ko numéro euh, ni koy waxee numéro euh, payant lay doon maanaam dañ mais dañ koy wàññi ah. mais même loolu hmm. mu gën a takkarnaase voilà et ensuite numéro vert bi c'est gratuit peut-être pour le consommateur mais état bi da koy fay donc donc beneen charge lay nekk. waaw charge boobu nag bi ñu demee ba 10 nag. Uh-huh. ci la gouvernement bi jël décision ne dañuy supprimer numéro vert yi ñun suñu bas ci la bokk. voilà d'accord leer na alors ñu ñëw tuuti ci mbas mi nag bi muy doog a dugg si ñu bëri tiitoon nañu ci yenn produit yi dana manqué ndax kenn umpalewul ne am na ñoo xam ne tukulóor surtout jëndoon nañu ceeb bu bari ak yeneen ak yeneen denc seen kër yi ndax yaakaar ne day manqué est-ce que loolu xawul perturber marché bi tuuti. waa ñu sant yàlla parce que ñun euh, même ñun ñu nekk ci liggéey bi euh, ragaloon nañu ni ko sénégalais yi bu ñu continuer woon fi nga daan jënd benn nga dem di jënd ñeent wala juróom day déséquilibré déséquilibré stock yi ñu fi nekk mais yàlla ci kàttanam dimbali nañu ba nga xam ne ne àgguñu ci niveau boobu parce que Sénégal yàlla daf ñu baaxee dañu am une politique commerciale politique boobu mooy que ni approvisionnement réew mi tout le temps ñun du yem rek ci lu ñu soxla par exemple bu ñu soxlaa ci ceeb ne ñun dañu war a jënd euh, quatre-vingt-dix mille tonnes par mois dañuy jënd quatre-vingt-dix mille tonnes yi ñu moom kii bi ba pare denc yeneen ñaari weer maanaam cent quatre-vingt mille tonnes yoo xam dañ koy denc pour au cas mbas bi nag bi muy ñëw ci situation boobu la ñu fekk mois de mars la ñu commencé bi muy commencé mois de mars amoon nañ consommation ba mois de mai donc ko loolu noonu situation boobu moom la ñu am amoon ci ceeb bi ñu amoon ko ci d ci ci dawlin bi amoon ko ci suukar bi gannaaw am nañu stock de sécurité boobu est-ce que dañu waroon toog xaar ba loolu mu jeex ñu ku soog commander commandé waat ñu ne léegi donte xam nañ ni que fi ñu jëm mois de am nañ ba mois de mai nañu commencé léegi léegi léegi di wutiwaat juin juillet mu dem yàlla ci kàttanam dimbaluñu réew yooyu nga xam ne ñun dañu yaakaaroon ni dafa am moment boo xam ne ñoom tamit dañuy taxaw dañu naan non ñun dañuy suñu waaw jaayatuñu ma heureusement côté boobu commerce international bi taxawul ci ci côté boobu le commerce le, la circulation des marchandises de des trucs euh, taxawul circulation personnes yi peut-être moo bloqué mais circulation marchandises yi mu ngi doon dem loolu moo waral ni ko yàlla suturaal nañu musal nañu ci loolu euh, àgguñu foofu waaw tey franchement euh, stock yi ñu yor euh, boo leen ko xoolee gouvernement bi distribué na lu bari ci ceeb mais terewul ñu ngi nekk toujours sunu stock de sécurité yi ba léegi voilà mbas mi dafa mel ni ci àdduna tey boo xoolee mi ngi yokkuwaat réew yu bari ñu ngi tàmbali di xalaataat confinement ak yooyu est-ce que tamit ci li ñu jëm jarul ñuy tiit euh, manque yenn produit yeex yooyu. waaw xam nga mbas mi euh, effectivement dañu nekkaat ci beneen deuxième vague de contamination te ni ma la ko waxee ci français euh, dafa am lu ñu daloon bi ñuy soog depart ci mbas mi état yu bari dañoo ñëw ne dañuy def confinement général confinement général bi ñu ko defee gis nañ ni que. li mu indi ci gàllankoor ci économie dëkk yi moo gën a metti que bu ñu toogoon jaakaarloo ak mbas mi ñu jàpp ni nag léegi deuxième vague bi nii ni mu demee nii boo dis delluwaatee noonu ci méthode ba nga defoon confinement général defe naa ni waxumoo sax suuxat mais dëkk yu bëri danañ am ay guerre civile parce que euh, problème bu rëy lay indi ci au plan économique voilà moo waral ni que ren euh, bi yoon gestion Covid bi mënul ànd ak ak confinement général parce que économie yi dafay taxaw te économie bu taxawee réew day day taxaw waaw ñaanuñu yàlla loolu moo tax jëmuñu ci option boobu waaw ñu au contraire dañu nekk ci relancer suñu économie mooy la le plan de résilience bi nga xam ne ni moom la président de la république génne ñu war ci liggéey rapidement ñu reprendre daal suñu liggéey économiquement ci la ñu nekk jërëjëf Omar Diallo amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ni yow yaay chef euh, service régional euh, bu commerce bu Ndakaaru jërëjëf. waaw ñu ngi leen di jërëjëfal parce que tour réew mi rek déjà mooy que ni yéen yéen a ngi doxal pour réew mi yàlla na leen yàlla defal jàmm ah li ci kanam raw li bët yàlla na yàlla suturaal defal ñu jàmm ak salaam. ok et une très bonne fin de tabaski aussi ah. allah.